alors lan ngay bi nga xam ne dans quelques instants ñi waaw xanaa di di xaar li Sénégalais yëpp di xaar li adduna bi yëpp di xaar mooy décision buy permettre au président Ousmane Sonko mu delluwaat ci liste électorale yi mën a jot fiche de parrainage am après xool ban parenage lay def mu mën a bokk ci élection présidentielle yi. je pense que tey àdduna bi yëpp ñoo ngi déglu liy xew fii ci tribunal déglu liy xew fii Dakar déglu liy xew fii Sénégal déglu nañu nag léegi avocat yi wax avocat yi nga xam ni ñoom ñooy défendre le président Ousmane Sonko te ku dégg lañu wax day dal xel day dal xel bu baax a baax moo tax am nañu yaakaar jeexagul nag wante am nañu yaakaar ni li fiy génn dina doon li nga xam ni dina permettre de président Ousmane mu mën a jot ay. tànk yi mooy tànk yi ma yàgg euh, taxawee tànk dëggal dooleel démocratie. Mhm. dooleel les libertés. et ku xam loolu ci man di ma suivre depuis vingt ans dans l'opposition mhm. xam nga ni lépp lu mës a jóg dem ci doomu aadama ak ku mu mën a doon rek taxawaay bi laa ci mës a am. Euh, bii nag bi mu dalee ki nga xam ni umpul kenn sama diggante ak moom. Mhm. muy la président Ousmane Sonko di xarit di aussi allié ci mhm. coalition Yewwi Askan Wi. Mhm. dafa jaadu lépp lu ma doon def ci terrain bi lépp lu ma doon def ci politique ma ñëw taxaw bokk ak moom bis bi comme ni ma ko defee ci bës yëpp yi nga xam ni ñoo fi jiitu ñoo fi jàll loolu moo waral tànk yi taxawu démocratie taxaw notre frère le président Ousmane Sonko taxaw les libertés te xam ni ñun dañoo gëm ni Sénégal démocratie bu mag la et que ku ne war nga bay sawaar ci anam bu mu mën a doon ba démocratie boobu ñuy continuer di ko chanter partout dans le monde et je pense que tey jii nii ak li ñu li ñuy xaar comme décision loolu dina gën a mën a firndeel lu ni mel kon daal ñoo ngi xaar ñu réhabilité ko mu mën jot ses fils de parrainage.